ministère bi ñu dénk wérgu yaramu askan wi jaare ko ci service national bu éducation ak information pour la santé ñoo leen di may seen communiqué du jour bu jëm ci wàllu Covid 19. asalaamaaleykum ñu ngi lay ñu nuyu di leen ziara leen communiqué bi jóge ministère de la santé et de l'action sociale. ci bési gaaw bi tolloox juróom-benn fan ci weeru novembre ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat junni ak ñetti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaari test si test yooyu le ñaar ñoo ci dellu si am doomu jangoro mbas mi ñaar kenn xamul fu jëlé fièvre bi kenn ki mi ngi région de Dakar kenen ki mi ngi région de Kolda am ñetti malade ya nga xamné ne nañ leen leen dafa nañ leen test ñu négatif donc tay mun wax né wër nañ am na ñetti cas grave moo xam ne feebar ñoo xam ne feebar bi da loflo loofloo ñu ngi leen ñu faj ñu ngi ci sauvetage ci bésu àjjuma bi mooy démba amul kenn ka nga xam ne ñàkk na bakkanam fii ci Sénégal li jëm ci wàllu mbas mi ñi nga xam ne ñu ngi leen ñu faj ci bërëbu fajukaay yi ci structure de santé yi wala ci kër yi ñi ngi am tan bu baax soo ko xoolee mbas mi bu mu tàmbalee ba léegi fii ci Sénégal natt nañ juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti junni lu toftal juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróomi doomu aadama ñi nga xam ne feebar bi dal na leen si ñooñu juróom-ñaar fukk ak ñaari junni lu toftal ñeent fukk ak benn wér nañ waaye ràññee nañ ci junni ak juróom-ñetti fukk ak junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan soo ko xoolee tey am na fukk benn ya nga xam ne fukk ak ñett yi nga xam ne ñu ngi leen di faj ci bërëbu fajukaay wala si kër yi démb ci àjjuma ji am na junni ak ñetti téeméer ak fanweer ñett ña nga xam ne ñàkk nañ ci wàllu mbas mi. loolu mooy tax tey bi ñu tàmbalee ñàkk bi fii si Sénégal ba léegi am na million lu toftal ñetti téeméeri junni ak ñaari téeméer ak ñaari doomu aadama yi nga xam ne ñàkku nañ fii si Sénégal. ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi gën a ñaax askan bi si wàllu topp mesure barrières yi ak mesure de prévention individuelle et collective maanaam di sax si raxas loxo yi ak ndox saabu wala di jëfandikoo solution hydroalcoolique di respecter dandante bi waaye aussi di takk masque yi comme ni ñu koy waxee masque bi dafa war a muur bakkan bi muur gémmiñ gi di ngi ñuy ñaax aussi ñu dem si bërëb ya nga xam ne am na ñàkk yi pour mën a jël ñàkk bi ma nga xam ne moo la ñuy aar ci feebar bi ñu ngi leen ñu gërëm di leen sant wasalaam Vous leen faire aimer à qui partager sur les réseaux sociaux